nuyuwaat nañ leen kontaan ti nag amaat mbégte lool jàkkaarloo ak yéen ñu koy def fii saa su ne tey nag euh, gis ngeen o oh, gis ngeen ma ni ma ni ma changé look yaakaar naa boo leen xoolee euh, tenue bi seen xel ci lu daj muy rek sport tagat yaram kon yakana tay tey wara dem dawi ba stade defi <laughs> tagat yaram rek daal di yengal yaram mi loolu da ci bax waaye yakana lolou lepp nak buñ ci dem ci anam yu muccu ayib manam di fa dem rek ak eh, anam yu mu waré sol tenue ni mu ken ken waralu ko rek dul ki nga xamantene mom yakana ken dotu ko présenter sax muy Sport gis ngeen tenue bi machallah wala te juk sax ma ngeen xol <laughs> waaye gis ngeen oh? ni macha allah waaw li mooy tenue bi moom yanju lool nag maanaam rafet lool ci war a dem rek tàggatu ji loolu waral nag eh, boobu ba léegi mu gis ne daal comme activité yi ñuy amal dem ci na wataan yi et dem eh, sport rek laa koy tuddee ah muy tàggat yaram loolu waral rek mu daal di am initiative moom itamit jàpp ci mbir mi moom tam def geste bu rafet proposé ñu ko mu tam ñu accepté ko di ko ko di ko ci jaajëfal bu baax nag muy rek eh, ñawal ñu daal te nuyu mucc ayib. loolu tax ñu daal di ñëw doxantu ba fi mu nekk rek di yof daagu daan waaye xam naa dama koy bàyyeeg euh, moom tamit kàddu gi rek mu nuyoowaat wax ñu rek euh, atu lan moo waral geste bi nga def waa ñu ngi kontaan ginnaaw bu ñu nuyoo euh, seen ñu ngi nuyu population yof bépp ak seen téléspectateur yi leen di bàyyi xel bon ñu gis ne aussi yéen da ngeen di def aussi liggéey bi am solo si yof quoi franchement yéen a ngi contribuer si lu jëmale kanam yof bo moo tax ñu def geste bi gest bu ndaw mais suñu bopp lañ ko defal ndax ñun yoof lañ dëkk aussi te lu ñu mën a am aussi yoof lañ ko amee waaw kon dëkk bo dañ si def suñu participation aussi ngir jàpp si li nga xam ne moom mooy Yoff Mbollo TV yàlla yóbbu ko ba si kanam ba ñëpp gis si seen bopp aussi parce que aussi seen liggéey rafet na et bo bon village bi yëpp aussi ñu ngi koy rafetlu yéen a ngi assister si yëpp situation yi am si Yoff yëpp yéen a ngi siy taxaw. franchement loolu aussi amuñu lu dul fay leen aussi te aussi ñun tam amuñu lu suñu village bi nga ne moom mooy Yoff fi la ñu màggee fi la ñu amee li ñu amee lépp kon teraanga bu ñu mën a am tamit dañ koy partager ak ñi nga xam ne aussi ñoom ñoo fi dëkk mu nekk waaw mu nekk geste boobu ne bi suñu participation la su luy jëmee kanam Yoff TV bi aussi di kontaan si trop si yéen quoi. ñun tam ñoo la gën a kontaan ndax ku toll nii Atou Atou yaakaar naa kenn dootu ko présenté macha allah ak ñi muy ñawal ñëpp yaakaar naa ni ay nit ñu am solo la loolu kooku moom bu ñu defalee lu mel nii du ñu def lu dul jaajëfal ko loolu waral gis nga équipe bi am na ñu ci jot a jox xam naa damay bàyyi rek mu def remise bi jox ko ki nga xamante ne moom mooy euh, jëwriñ ji ah. <laughs> suñu jëwriñ <laughs> waaw rafet na ma bàyyi ko moom mu sànni ci kàddu rek xam naa ni sa xol seddati na de ah. waaw comme toujours ginnaaw bu ñu sante yàlla julli si Seydina Muhammad sangub sangay ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp euh, xol gënati naa sedd xol seddoon na fan yi paase waaye dafa mel ni gënati naa sedd ndax euh, barki démb boo njaay yàggul la ñu monsieur le maire woo ba ñu ñëw mu ne tànn leen salon bu leen neex ma jënd leen ko yof mbooloo ñu jógeeti si loolu Ousseynou Thiom oo ñu ba ñu ñëw mu ne taabal ji jël leen ko ngeen yóbbu ko table boo xam ne bu ko doon estimé valeur huit cent mille la donc yombul ñu xëyati tey aatu ooñu offert ñu encore ay blouson jox ñu ko gratuitement ne moom moo ko dimbalee Yoff Mbollo TV kon defe naa ne bu xol seddul dara dootul seddati te xol bu sedd doy na ñaan te lii vraiment euh, exemplaire la pour euh, Yoffois yëpp ak Yoffoises yëpp ndax lu mel ni yombul nit dina nekk si coin di liggéey eh, lu mu am def ko si poosam bokk ak njabootam waaye bu it kenn du ko si su ba gis si dëkk bi laa bokk dama a contribuer si ñi nga xamante ngi développement wu dëkk bi kon donc lii geste euh, exemple euh, ah, pour ñëpp pour euh, ñëpp te kontaan nañ vraiment tamit may wax ne Euh, yéen waa Yoff ak en dehors de Yoff xam naa comme day dem si YouTube beeg yooyu moo waral appel bi duñ ko mën a yemal Yoff day dem niveau international ak yëpp ñi ngi wax ne képp ku bëgg a blouson ñëwal si aatu boo ñëwee si aatu dina la ñawal blouson yu mucc ayib defe boo leen xoolee tey sama journaliste bi ngeen xam ne yanjanal lool lool lool tey jii moom macha allah waaw euh, beneen bi mooy xam naa ne bu ko équipe bi solee ba taxaw lay gën a kontaan xool dina gën a seddati te lii ay mbir la yoo xam ne. day tax sax euh, nit bi duñ ko fàtte parce que ñun ku ñu accompagne ñu accompagner la ñun damay wax ne dóor fayu moo ko yàq te lii ñu aatu defal nii ñu nit dinañ ko wan ne si wàll wi ñuy yëngu ñu nit si lañ la mën a faye te dinañ si dem ba jeex lépp lu si góobee rek gar encore une fois jërëjëf aatu kontan nañ ñi ngi lay remercier di la ñaanal yalla ya xam li nga bëgg yalla na la ko yalla defal jërëjëf ma ngi remercier ñëpp di yok ñëpp yalla nañu la fal chat nak yalla nañu la fal chat yalla nañu la fal chat waaw aatu kon ma bayal rek nga sani ci sa kàddu gu mujju waxale rek euh, numéro de téléphone bi ku la soxla contacter nan ngay def waaw waaw avant ñuy dugg fofu sa dañuy remé dañuy ñaan quoi population bi moy comme ni que sa waay waxee ñu ñëw jàpp si lii quoi parce que yëf yi yëf yi la quoi vraiment ñu ñaan képp ko am ne ki yaa yëngatu sa domaine nga ñëw aussi ñoom ñu waneel la sa mbiir aussi loolu si liggéey bi la quoi parce que aussi ñun amuñu lu dul bi quoi yoof gi bon je que fi lañ juddoo fi lañ màggee mooy li ma sànq amee teraanga yi ñu yàlla jox ni donc lu ñu si mën a amaat tamit dañ koy delloowaat si si si si village bi quoi may remercier aussi ñi nga xam ne ñu ay suñuy partenaire lañ aussi ñoo xam ne dañ ñu wóolu toujours du ñu jox seen liggéey bon loolu sant yàlla la quoi ñu si mel ni tey ji par exemple euh, kii ki Yoff xam nga ak Crampi mooy ñëri mars ñooñu ñëpp tey mënuñu leen fàtte ak collectif des enseignants muy école bi nga ne moom moo nekk laayen di ñaan aussi ñi ñi yóbbu seen doom yi foofu vraiment seen njàng rafet na et puis nice ak yeneen partenaires yi nga xam ne ñu ngi fi yëpp suñu club bi nga ne moo ne si village bi yof daago daan muy njere ak yeneen kii ay waraar ngapparu club yooyu yëpp ay mbengeen franchement ñu ngi leen di ñawal franchement daal mbir mi daal mbiru fii la quoi c'est pour Yoff je pense que li ñu nar dem di jéggaani si biti franchement boo amee robinet sa kër moom jarul ngay dem di rootaane na ñu na ñu yaatal daal mbir mi ñu xam ne fii la quoi parce que loolu dàq muy dem àll mieux vaut nga ko sa dëkk quoi parce que fii ñi fii liggéey ñëpp xale dëkk bi lañ fi lañ dëkk donc li gën a rafet mooy lu ñu nar a yóbbu fële nañ ko indi fii ñu defar ko et puis yef jëm kanam dal, parce que dal man lool lay wax quoi contane na quoi wa numéro bi da ngeen def ki 77 535 97 50 waaw boobu waaw ku woote daal foofu di nga jot ki bi quoi aussi déplacement bi quoi kontaan nañ si ñëpp daal ñëpp ñun kay yow la ñuy bu baax ndax li yombul de waaw macha allah te naa ni euh, ñu maire euh, Diouf saar aussi franchement mu ngi liggéey quoi quoi qu'on dise quoi ñu ngi mu ngi wane ñu ñaay gis ñu ñaan yoof aussi ñu jàppale ko quoi ñun nekk ñu fi ma Samba nekk ñu fi ma Demba ku ku fi liggéey daal la ñuy wax man Diouf Sarr lekkuma ma mais je vois que il travail pour Yoff donc nañ ko soutenir jàppale ko moo gën ñuy toppay jàmbur yoo xam ne franchement tey jii bon bu ñu xewloon wala duñ leen gis kon comme moom il est là il est natif de Yoff nañu taxaw si ay conditions jàppale ko réew mi jëm kanam Sénégal jëm kanam yof jëm kanam quoi appel boobu daal laay wax quoi. Ah, am na solo macha allah kon ñu ngi lay jaajëfalaat rek kon eh, mbokk téléspectateurs yi gisati ngeen ko rek macha allah li ñu defati muy lu rafet yaakaar naa ni bu ñuy demati stade kenn dootuñu laajati foo jëm de xam naa bu ñu solee blouson bi rek dinañ xam ne. <laughs> foofu la xam naa njoon laay moom sama caméraman instant bi mi ngi ci ginnaaw eh, caméra bi moo tax waaye bëggoon naa mu ñëw sol tenue bi sax moom tam daal di taxaw waaye dara di ngeen ko gis kon Atou ñu ngi lay remercier waat bu baax di la ñaanal liggéey bi yàlla na yokk jëm ci kanam kon jaa ngeen jëf mi ngi noonu merci